que mon exil touche sa fin je me tourne vers l'avenir avec juróom benn at ak léegi bu mu génnee réew mi nekk fële ca Qatar Karim Wade daal di na dellu si bu baax a baax ci discours bi mu daal di amal ci anam bi mu génnee Sénégal. cet exil forcé après un procès arbitraire suivi de trois longues années de prison m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. wante kii di Mamadou Sy Albert li mu gis mooy bile discours nekkul lu dul. communication politique ci ay fànn yu wute. mais loolu mooy victimisation que que dafa bëgg a accuser président Macky Sall waxu ko noonu mais bu ñu déggee li mu wax mooy que man murid la dañ ma exile force ma bañal ma sax dem seeti suma sëriñ. moom candidat wu PDS bi dal dina yëkkati jëmale si jafe-jafe yu ndaw yi di jànkoonteel ci wàllum xëy teg si seeni nekkin fii ci Sénégal. Mon vœu le plus cher est qu'au Sénégal, la jeunesse se sente inspirée. soutenu plein d'espoir en son avenir. wante ci gis-gisu kii di Mamadou Sy Albert Karim Wade dafa daal di tàmbali campagne électorale am. mën nañu wax ne que démarche bi en tout cas am na esquisse de programme am na lu muy waaj te lu muy waaj. ak ngërëm jëmale ci militants yi. malgré les obstacles et les défis. Votre fidélité indéfectible au Parti démocratique sénégalais est le témoignage de votre engagement et de votre croyance en nos idéaux. mu mel ni rek loolu doyul ndax faaw mu teew. su buggee am dara il faut que PDS am mobilisation militants yi am mobilisation électeurs Wade am mobilisation loolu yëpp nag dafa laaj que euh, moom euh, PDS yëngatu nekk ci gannaaw. génn wax. ak militants yi doon lu am solo lool jamono jii wante ba tey moom mi la jotul wax benn yoon ana kañ lay ñibbisi fii ci Sénégal.